est là avec madame Gana Gueye est là il est en train de chercher ses sacs avec madame Gueye actuellement nii mi ngi seet ay saagam ah ne ne di wër ñëpp ñu ngi wër seen bagage yi Gana Gueye ngi nii c'est moom madame ñu ngi wër seen ay valise la ñuy wër parce que valise yi dafa bëri tellement kenn ku nekk nag di xool fan nga teg sa valise sa Gana Gueye mi ngi nee taxaw ànd ak madame madame a ngi nee taxaw mi ngi wër nag fi mu nekk nii li nga xamante ni moom mooy valise am sabaa sisan kɔni ɲɔgɔn don sun kɔfɛ